you ci kon mi ngi noonu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar di leen tatakal di leen jox seen wàcciwaay bu baax tey euh, ñi ñëw ba tey euh, defaat beneen émission ak ki nga xamante ni moom moo di euh, ndaanaan bu mag bi ñu gën koo xam ci ama neex koo xamante ni lu ne def na ko ci làmb ñu ànd ak moom tey fii ci wasaare làmb ama neex maa ngi lay nuyu. waaw ku baax ki maa ngi lay fay sama waa ji. na ama neex tey ñu gis ni li ngay ñëw États-Unis dafa bëri. maanaam lan mooy tànk bi. macha allah dama ñëw pour entraîner rek ndax li mbër laa dama ñëw pour entraîner mais mu amee benn festival mu war a dem damay dem doxi ko ñëwaat toog sama kër entraîner ndax man ku xam mbër moo tax nga xam ma. waaw loolu la ci ci festival boobu noonu nga wax euh, xaw ma euh, nu mu tuddati sax fashion show boobu noonu euh, ñu gis nii da nga demoon ci fashion show bi moo moo la déplacé pour nga ñëw moo tax nga ñëw wala. waaw moom moo ma déplacé moo tax ma ñëw waaw moo déplacé te sama diggante moo xam nga si dara. 2014 ba léegi ñu ngi ànd mm-hmm. man xaaruma ba lépp sotti ma doog a ñëw mm-hmm. waaw noonu la demee. Uh, maanaam ci gàttal boo nee xaaruma ba lépp sotti moom loolu lu muy wënd. non boo yow yaa gën a xam li ma lay wax bu baax doo ngaaka doo innocent. mais boo nee boo boo nee bu xaaruma ba lépp sotti day mel ne dafa am ñoom te dañoo bàyyi ba mu sotti ñu doog a ñëw. mais xam nga àddina boo si nekkee ñëpp mënuñu la bokk a bëgg. Mm-hmm. am na ñoo xam ne nit ku nekk ah li nga koy toppee am na ñoo xam ne dañ lay toppale ngir intérêt bu dee jigéen la mën nga ko toppee man nga ko toppee ngir fowe ko bu dee mën nga ko toppee ngir bëgg ko te yàlla tax mën nga ko toppee ngir bëgg xam si moom dara wala bëgg a nekk ak moom mën nga ko toppee tamit bëgg ko te yàlla tax noonu la demee rek. waaw. Euh, ba tax ba tax na tey euh, dégg nañu kay ngay nga ne euh, am na ñoom te nii maanaam yow xaaroo ba ñu sotti am na xaw ma ba xam am na ñu xaar ba mu sotti ñu ñëw <laughs> wala déet mais yow mi nga xamante ne 2014 nga àndaloon ak moom nee nga xaaroo ba mu sotti ci ci sa mbokk mbër ñu bëree bëri ñi ngi ñi ñi ñi ngi kaas ku ci mel na ku ci mel na avant may ñëw ci Kara Dollé damay ñëw ci ki nga xamante ni moom moo di Lirou Diane ah, Lirou mi génn na wax na nee na gars yi fii dafa am ñoom te dañuy siisante dañuy xaw ma man mënuma ma comprendre yow comme yow yaa ngi ci biir loolu liiru di wax yaa ngi koy dégg na am na wala amut. non dégguma ko ne xaw ma sax lu muy wax lu mu wax. dafa ne dafa ne dañuy siisante sax moom li muy kaas yow fekkee woo ko mais moom mi ngi wax ne ci biir gars yi am na ñoom te dañuy maanaam dañuy siisante seen digganteeg moo maanaam di ko jaxaseeg moo di def yenn affaire yom te mi ci biir. non man moom lenn rek laa siy kàddu lenn rek laa siy wax man du ma sos du nettali man sama diggante moo laa xam. Mhm. bi may ànd moom. Mhm. benn mbër xamu ko. Mhm. te loolu xam nga si dara. ndax lépp fii la la fekk. bi may ànd moom. benn mbër xamu ko. bu dee dëgg la moo na yàlla. loolu rek laa si toll. mais mais mais moom li mu wax yow mu amuloo loo ci mën a teg loom gis nga ko mu gis nga ko mu am ci biir wala genre yooyu noonu parce que dal na sax ba ci ba ci euh, Babacar ci diaspora am na yu mu wax boo demee ci internet bi di nga ko seen léegi léegi am na vidéo am te dugg na bu yàggul. non loolu moom dara waruma si man moom damay wax dëgg rek te yàlla tax ndax man dañ ma yar. tu waaye lu waaye wax ma tontu man ku ma dégg nga wax si man bu ma la mënee tontu naa la tontu moo ma la mënul tontu ma ba jéggal la te yàlla tax. ndax doomu aadama noonu la war a fonctionner jéggale jëlale mais man détail yooyu duma ma si débat mais lenn rek laa mën a wax mooy bi may ànd ak Mouhamed mbër xamu ko man la njëkk xam si mbër. Kara doole moom génn na ak dooleem ak cawarteem lépp nee na yow fi mu nekk nii yaa ngi yàq deru mbër yi nee mu ni nga nekkee ci ci ci moo di baleeg lu ne nga dugg ci nee na yow loolu waroo ko di def en tant que champion loo koy tontu. non du ma ko tontu dama koy wax naka mu jéem a dimbali boppam mu jéem a mel na nun mu jéem a am comportement nit mu jéem a silwise mu dem jàngi communication loolu bu amul ci nit leneen ngay doon jéem a xam ñi ñu baax jéem a ànd nit ñoo xamante ne bu na tenee dina la dimbali fii kenn mënul ko suñu boroom du ma wax turam ndax dégg naa li mu wax yépp moom xamul sama diggante Mouhamed tey bu soñoon ñëw fi ñu nekk nii ndax fii doon na dëkk boo xamante macha allah fenn jommuñu mais nit bul gis bul gis bul gis lenn rek na damm na na tël na damm na xamul sama diggante Mouhamed li may ànd ak 2014 laa xam ne am moom 2013 ba tey mu ñëwee États-Unis fii moom may fayal saal moo may fayal box mooy box bu may ñibbi mu defal ma taraanga ma ñibbi di ma jàppale si lu ne mu nekkee Sénégal dama taxaw dama jàppale kon kooku du tey lañ ànd ngor la ma jëkk ma delloo ko ngor mu doon ku baax Mouhamed moo géet mu doon nit ku baax nit ku teey nit ku solution li ma gis si moom rek laay wax waaw yow lan mooy mooy sa problème ak Kara Dollé ban ban problème ngeen am wala wala wala lii mu gis ci internet bi rek moo tax mu wax ak yow loolu wala da ngeen amoon problème avant. non non amuñu ma suñu am problème xëy na peut li mu gis moo tax rek mais li ma def noonu du garaawul dama bala rek ndax Mouhamed dane bala leen ko nee na yu tàkk ne du xaalisu miraas na ngelaw fayu làmp bala bi nag comme te mu ngi baraat baatare ay sàmm ma jël bala gi rek dabala ko ko bu ko defee euh, lug bi mu bëgg mu gën a génne loolu moom si dugal. kon li nga doom bale ni dara demul si sa poos. non ndax ko doon bale ngir Aïda Samb. man tamit pour man reg naa a ñëw. milliard ak dërëm laa yemaale. Mm-hmm. am déet. 2014 ba léegi. Mm-hmm. donc yow mooy loolu. noonu la demee rek mais mais que xam nga ni fi mu nekk nii euh, sa sa bale boobu noonu yóbbee na la coow boo xamante ni boo demee Sénégal ah, gaw ma ni di nga si génnee noonu de li nga expliqué fi fii nii doy doyul sénégalais yi de. kaay nag ma xamal la benn affaire. am naa fulla am naa fayda. te xam naa fi ma bokk. lu waay wax jégal naa ko te yàlla tax mais kenn ma dab di ma saaga wala kenn ma dab di dama wax n'importe qui ak kenn. Mhm. mënul ne ak kenn du daal. mais yow mais yow ci ci ci programme bi euh, lan lan nga ci woon ban ban ban ban ban position la la ci Mouhamed joxoon comme woo woon na la ñàkkul ni am na position bu mu la ci jox ñii ay sénateur lañu ñii ay caméraman lañu ah, ñii ay DJ lañu yeneen ak yeneen yow ban position nga nekkoon ci ci xew mi. mais position bi ma nekk xam <laughs> nga. nettali ci làmb ni boroom lay dàq. bon euh, position bi ma nekkoon en tant que frère grand frère ak petit frère xew la na dala mu wax na moom ma nekk ci ginnaawam mm-hmm. doon gar doon def rap garde rapporté defal ko sécurité te xam nga ci dara vidéo yi mu ngi nga laal sa costume bu baax topp ci ginnaaw fu moo dugg rek nga dugg fa waaw moo ma jëndal costume ma defar ba mu baax topp ci ginnaawam jàppale ko ci bésam ndax nit ki amulul bésam moo amee combat moo daf may jàppale daf may may ay millions ma préparé combat mm-hmm. kon bu amee bés da nga ko war a taxaw loolu mooy wàllu jullit mooy wàllu gor mm-hmm. ndax ku dimbalawul doomu aadama yi te moom mu ngi dimbali doomu aadama yi te donc bu ñu amee problème wala bu ñu amul problème mu defal nu teraanga bu amee bés nga mën kaa jàppale. wala li ma wax du dëgg. li ma waaw ah, ah, loolu de dëgg la vraiment sa nit. bu la dee jàppale war nga koo mën a jàppale te moo tamit ku ko xam ku ne xam ko ci teraanga vraiment euh, du moom moo tax ñuy wax li ñuy wax maanaam lim ñu wan moo tax ñun ñu koy wax ma koy waxal man loolu man man sama en cas de personnellement man xaw ma nax yow mais gisaat nañu beneen coow. da nga cee bëri coow a ama neex ama gisaan <laughs> nañ beneen coow ama neex Viviane yow ama neex mbër nga ci làmb ngay yëngatu tey moo invité na la jël la def la garde rapproché wala yooyu noonu waru mën a tax nga nga nga yàq lu lu ne mel na xeme parce que internet yay wax. non ma mais diglu ma rek ba ma pare. internet yay wax nee nañu ah yow waroo toog di ay Viviane lii waru koo def nangam ak nangam yow li Viviane war def nee nañ yow waroo ko wax. Mm-hmm. xamoon fii ñun ñëpp ay jullit lañ. Mm-hmm. ñun ñoo bokk ndey ak baay kon li nga wax rek sa wax ji bu dara amee rek am na lu tax comment lii nii du ma si détail ndax lii yëpp ay détail la li am Las Vegas dara ump la ci boo toogee fii di ma tiimale sa caméra bi mooy loolu. mais man dara xamu man xamu man xamu man dara ump ma ci mais mais non non non c'est que c'est que c'est que. ma tuuti barki yonent yàlla Muhammad bu dee dëgg rek moo ne yàlla. Mhm. moo sax bëggul woon ma wax. mais man lébu laa. damay far te tamit sama nit du ma nangu ko ko laal te li am Las Vegas yow xam nga lépp nu mu demee jaruma toog fi di la ko nettali. loolu duma si débat. maanaam sa nit euh, doo nangu kenn ku ko laal moo tax bi bi bi bi Viviane defee noonu yow tamit nga daal di génn réagir. tey jii yow suma xarit naa. kay lañ xamante. waaw yàgg na de man yow moom dañoo yàgg. du 2015 wala 2016. bu ma bu ma génnoon fii nit bëgg la sonal ma la kaay sama ginnaaw. ma xeexee bi man noonu laay fonctionné noonu laay jàppee nit tant que wanoo ma lu tax ma balaa nit mënul tax ma bala man góor laa. loolu moo waral euh, nga nga nga nga nga nga nga kaas ci ci Viviane li mu def. Euh, mu yëpp garaawul li ma wax paase na paase na nañ wax leneen nañ wax li fi xew. wax town bi wax projet yi ñu bëgg ñu waxtaan. Ah, waaw projet yi dinañ ci wax mais xam nga dafa am loom te ni man du man maa ko soxla pour mu leer. parce que man ak yow ñoo nekk ndawoon Las Vegas mais li ma lay laaj nii internet yi ñoo ma yóbbante te yóbbante àq la te bëgg nañu yow nga leeral ci parce que leeral boobu noonu tamit day setal sa der. parce que tey boo boo waxee Viviane weere na li mu def waru koo def àdduna gis ko tamit war nga cee mën a leeral. mais dafa weere ndax tamit nit bu ñu la fayee la boo ñëwee même boo sax même boo war nga am neneen noo doxalee ndax tamit moo géet sénégalais la Viviane sénégalais la n'est-ce pas. ñun ñëpp ay sénégalais lañ. kon daa war a rafet yëg la rek Séné euh, sa euh, artistes yi bari nañ Sénégal moom nañ ci taamu. Mhm. ak Aïda Samba kon moom bu ñëwee waroon na mën a ah, mentalité bi mu am. Mhm. waroon na mën a doxalal neneen waxuma leen lu aay dama ne trahir na mafia bi rek. loolu laa wax rek indi nañ la fii moo woon nga réagir a neneen ak neneen. Ah, réagir noonu lan lañ ko def ba tax mu réagir noonu. booy xam nga lépp bu mu wax loo. mais man du man <laughs> mais faaw nga yaa wax trahir na yow faaw nga leeral askan bi ko soxla. booy wuy ma. Ah. bu ma waaxu. dégg nga ma waaxu xam nga lépp foofu laa mën a yem. jéem waaw. <laughs> comme foofu. Ah. maanaam si moo. Hmm. baax la laa ko xamee. ku dee asa bàmmeel sama bàmmeel laa taxaw baax laa ko xamee nit ku baax du siggi xool mhm. nit ku baax ku yiw mhm. ku garne diñam ku am ay waajur yu baax mhm. man yàgg na ma jàppale du tey dama naan am combat sama combat Moussa Dioum jàpp na si fii laa ñëw mu ma saal may entraîné sama combat booy bawal moo li ma entraîné fii yëpp deux mois quinze jours yëpp moo moo fay saal fayal ma boxeur may entraîné te boobu lii amagul am déet waa nit kooku na bu lay defal teraanga di la jàppale te dara xewul bu amee bés war ngaa mën a taxaw doon gor jàppale ko man noonu laay fonctionné man doomi gor laa doomi jullit laa mhm. loolu moo ma tax ma ñëw fii mhm. mais man jëlu moon décision sax pour ñëw États-Unis instant bi moment bi hmm. maanaam mu moo tax yow nga déplacé wu ñëw ma déplacé wu ñëw mhm. ndax moom jaral na ma ko mais mais mais mais xam nga kenn ku nekk xam na ni yow mbër nga am na loo xamante ni da nga koy soxla euh, tey moo bu la déplacé am na loo xamante ni dina ko def ak yow am na ñu mu def ak ay dix mille dollars ñii ay cinq mille ñii vingt mille dollars yow nan la moo def ak yow. <laughs> ah poste bi diis na. <laughs> non moo gisagul gisanteeguñu sax. gisanteeguñu sax. moo gisanteegul ak yow. non gisanteeguñu. mais am na ay wecc yu sew yow la. waaw mais loolu. man yooyu ñaata la maanaam. <laughs> laal ma. waaye yow wax de. non laaluma <laughs> dara sànkara wala walaal. Ah? sànkara moom gis nañ ñu koy sang. Ah, ah, gis nañ ñu sang. wala kat dina ma sang mais kenn sangaguma. kon ba léegi nii amul benn dërëm boo ci la. sang affaire yaa ngi fi affaire yi. du fi jóg yow. mais yëpp yi Las Vegas la woon yow nga dem ba Las Vegas ñëpp laal yow laalu. xam nga man yàkkamtiwuma. te man tamit moo. bi may defal teraanga du tey. Hmm. lu may daw bay daanu. nit ku nekk sa wërsëg di nga ko jot. nit ki dafa am mooy li ma la wax première waxtaan wi dafa am ñoo xamante ni man nañ toppee mu intérêt am na ñoo xam ne toppoo ñoo ko intérêt man toppoo moo ko intérêt ndax bu may defal teraanga du tey du at mii ay five years ago mu ngi may defal teraanga te lii amul kon man bu ma ñëwee fii li ma war mooy tey dal ndax moo yor na xol bu rafet boo xamante ni man bu ma laa ñibbee li ma séq ak moom man ak moom sama wërsëg bu neexee suñu borom dinaa jël ci moom loolu mooy àdduna jarul kat sonal wala ay nii ndax moo gis nga ko toogul sax mu ngi si yeneen business yaa may dégg kon donc nag li nga ko mën a ñaanal mooy yàlla may ko fënd gudd ak wérgu yaram na nit ku baax la. léegi mën nañu jàpp ni euh, ama neex mi ngi ci staffu euh, Mo Gates fii yaa yaa ngi ci staffu léegi Mo Gates ci nga bokk. waaw moo bi may ànd moom mooy li ma la du tey. maanaam xam naa ni ànd bi ànd bi yàgg na mais staff bi maanaam ci ñi dañuy bokk ci ñuy àndandoog moo di liggéeyal moo euh, ci foofu noonu laay laaje man moo maa ngi nuyu xaadim en passage tamit moom si la bokk euh, moo man fu ma ne fu ma a nekk fu ma soxlaay damay ñëw ndax moom moo ma jig teraanga boobu du ay staff wala cest à bi ñuy ànda boobu staff amul dara amul ba léegi ñu ngi ànd li ñuy ñaan mooy yàlla mosoon na si cat ak seytaane ba yàlla def ànd bi gën a sincère ànd bi gën a dëggu